tabaarakallaahu ñu ngi koy beral nuyu ak cant ni ko nii di ko ziara bu baax waaye tabaarakallaahu di nuyu mboolem ku nekk ci Infos yëpp ñu ngi lay nuyu di la ziara tabaarakallaahu ñu am mbégte rek tey ak kontante ñëw yéen tabaarakallaahu ci waxtaan wu am solo tabaarakallaahu di waxtaane rek li nga xamante ni moom moo di euh, koor muy weeru koor tabaarakallaahu di waxtaane surtout li nga xamante ni moom moo di taarix bi tabaarakallaahu ndax koor tabaarakallaahu dafa am taarix maanaam dafa am fu mu départ loo gis rek am na cëslaay euh, maanaam am na am na fu mu commencé tabaarakallahu koor nag nekk lu nga xam ne dafa am taarix dañ ko faratal tabaarakallahu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax dañuy wax ni faradallahu azza wa jalla ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam asiyam kama faradahu ala al umami allati sabaqataha bi xawlihi taala ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum asiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة سنتين من الهجرة المبارك تبارك الله كون لولو موي تاريخ بي دغ موني كون ويرو كو دانيو كو فراتال تبارك الله تي يونت بي صلى الله عليه وسلم اك تي او خيتام واو تبارك الله نينا نيو كو فراتال تي نيوم كوم ني نيو كو فراتالي تي يونت ييغا خامتاني نيوم نيو لين في جيتو اك سيني اك سيني خيت bu ko defee kon tabaarakallaahu euh, ñu ne nag loolu kañ la amoon ñu ne loolu mu ngi amoon tabaarakallaahu euh, ñaari at après gàddaay gi maanaam ñaari at ginnaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay jóge Makka dem Medinatul Munawara ci weeru Shaaban mu tombeeg bisub altine tabaarakallaahu ci la ñu farataaloon li nga xamante ne moom moo di weeru koor weeru koor woowu nag mbokk yi tabaarakallaahu am ay ay ay fadail maanaam ay ngëneel yu ci nekk yu amam solo yu bari sax tabaarakallaahu euh, bokk na ci ngëneel li nga xamante ni tabaarakallaahu moom la weeru koor woo làmboo moo di tabaarakallaahu dafay ñëw ngir defar defar ruuxu nit ki kon tabaarakallaahu lool lool rek benn la ci ngëneel yi waaw weer wu nga xamante ni tabaarakallaahu dafay ñëw pour defar ruuxu nit ki yar ko ba defar ruuxam waaye tabaarakallaahu defar bakkenam waaye tabaarakallaahu jàngal ko itam aussi li nga xamante ne moom moo di muñ moo tax mu wax ni wa min fawaidi ruxiya li saw sawmi annahu annahu yuawidu sabra wayu yuqawi alayhi waaw tabaarakallahu dafay ñëw pour defar li nga xamante ni moom moo di ruuxam tabaarakallahu ba ruux bi nekk ruux bu nga xamante ni ruux bu sell lee doon waaye ba ci des ci eh, ngëneel li moo di dafay eh, yar nit ki tabaarakallahu ci wàllu muñ ci cadre muñ dégg nga ba ci des na itam moo di yar bakkanam tabaarakallahu muy nag waxaasatan at taqwa dégg nga muy tabaarakallahu bi ci gën a am solo nag ci yooyule moo di tabaarakallahu day def ci nit ki li nga xamante ne moom moo di ragal yàlla ragal yàlla boobu li nga xamante ni tabaarakallahu euh, moom la nit ki di wut ci weeru koor waaw maanaam mooy diplôme bi nga xamante ni moom la nit ki di wut ci weeru koor ndax tabaarakallahu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaqun waaw te eh, taqwa boobu nag tabaarakallaahu moom mooy eh, objectif bi nga xamante ni tabaarakallaahu mooy eh, objectif bi tax yàlla farataal koor maanaam dañuy wax ni koor objectif bi maanaam jubluwaay bi mu bi bi mu am moo di mooy taqwa waaw moo kon kon nga gis ni koor ak tabaski tabaarakallaahu ñoom ñaar ñoo bokk benn hëdëf muy benn objectif bu ñu am ta moo di taqwa ndax boo demee tabaski dañ lay wax ni lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yanaaluhu at taqwa kon tabaarakallaahu xërëf boobu muy objectif boobu moom la weeru koor am kon tabaarakallaahu bu ñëwee bu weeru koor ñëwee pour defar ruuxu nit ki yamu ci tabaarakallaahu mu ñëw pour yar ko ci wàllum cadre muñ waaye tabaarakallaahu tabaar mu ñëwati nag renforcer li nga xamante ne moom moo di euh, taqwa muy ragal yàllaam tabaarakallaahu loolu kon lu am am solo la waaye mbokk yi weeru bu nga xamante ni euh, dafa ñëw indaale ñetti sërite tabaarakallaahu ñett ñetti sërite yi mu indi nag di ay ñetti sërite yu ama am solo sërite bu njëkk bi tabaarakallaahu moom mooy raxma ndax boo xoolee tabaarakallaahu fukki fan yu njëkk yi ci weer wi eh, fukki fan yu yërmande la ndax awwaluhu raxma la yonent bi wax kon tabaarakallaahu sërite bi njëkk weeru koor njëkk indi